ak duggaat ci appartement yi su xëyaatee minuit midi ñu génnee seen ndey ci mbedd mixa yi ñu lijjantiwaat kolo kolo benn quinze mille benn appartement la ñuy jël quinze mille ñoom ñëpp ñu bokk ko ñoom job dollar ñoom mec osé boy yi di dugg di fecc di sële dañuy duul xaalis bu ñu yor yëpp ñoom ñoo koy jàpp dem retiré ko dajale ko di fen di duul mixa seen ndey zéro heure ñu dugg si police police feene police polisu parcelle ñu fay ndey six mille ñu génneewaat leen chaque jour chaque midi nag buntu mixa la ñu nekk di taxawaal ñu kolo kolo li jëntiwaat quinze mille duggaat noonu la fi booy nekkee. dinaa dëgg seen ndey nag ñoom ñëpp suba seen. yaay laay def dina kattan ndeyam top dollar dooma ram. maa ngi wàcc dugg rek. non Diop dalal moom Armo waaw. ñoom ñëpp rek. ay doomu lañ de. waaw loolu la yi wax de. booy xam naa ne bu baax man ak ñoom ñooy ànd man a man ak Michael. Ouz Michael moom dooma wax dëgg yow. non loolu booy booy ay lañ duñ la déglu sax. booy dañuy def li def quoi. booy waaw yow booy daay imbécile booy lu muy indi xaalis lu muy indi si xaalis fii si koñ bi. xoolal ay ay millions la ñuy yor di kat seen ay millions. non booy yi nag amagoon an million wàññi leen seen tuuli. eh Adamo. mi naan mi ngi dafa rafet nag loolooy mu teg ci table bi yëpp cinquante mille la. Adamo danaan ay sokoleen danaan ay sokoleen. Maodo waxtaan bi rek kay mi naa wàññil. mi naa wàññil mi naa wàññil yi nag dafa dis trop. ba pare mi naa yow dafa mel ne danga dëkk ci ñoom. seen compte TikTok laay nekk di booy. booy Adamo. Hmm. booy ñoom ñëpp a kat seen. booy booy booy sax dañuy tux. Ezel day tux jigéen ñi sax suñuy non tux Ezel day tux. booy ay doom raam nañ booy booy handicapé sax xëy bu ñu ko. dëgg la de. Adamo Ezel day dox rek ci fecc amul métier. Ezel moom Ezel moom moom dama ko yërëm amul liggéey moom xaaral ma ko boo gën a toccot ndey moom. te Adamo Ezel mag la Ezel mag la nag. ku mën a yow eh. yow xanaa xamu Ezel bi moo mag cere maasik laalo Ezel da ngay xool site su karam nga xool kanamam gi ni mu nooxee yi oto Ezel mag la nga karbati muus nga xool bakkat bi xool jëmi mag la de Ezel la gën a toj cot ndayam daado si met Ezel amul liggéey mbedd yi lay war di fecc ah ak sax yaa ngi sa cot nday Ezel la gën a toj yow yaa ngi def yow nag sa duul yi baax na lool mais sa bëri bi dafa <laughs> yàq kat naa sa mbay ci suuf. allo. dinaa Saalum yow del wàññi duul yi ñi yoruñu ay millions. waaw yoruñu ay millions. mais est-ce <laughs> maa ngi lay déglu. Ezel day dox rek di fecc di duul. waaw way ay duulkat lañ job dollar day wër di taxawaalu si mbedd mixaay la ñuy nekk di taxawaalu booy yëpp a kas seen ndey. waaw doomu xaraam lan de Ezel moom Ezel moom ku gën ku ko gën a toj la fa ndeyam amul. asal doomaraam la. Mina yow xanaa ñi la tooñ. barki Cheikhul Khadim tooñu ma leen. ci tiktok bi laa leen siiw ñuy def da koo wét. barki sëriñ naam. sama ndey no Arbo maa la nga yeggali. ah jërëjëf kontaan naa jërëjëf waay jërëjëf. Mina merci beaucoup ci information yi jërëjëf wàññil duul yi nag bu beneen yoonee Met Pro maa ngi lay déglu. met waaw caam nga sama waaji maa ngi lay ziar Adamo boss de Negri ñu yuuxu booy di leen saaga. waaw parce que ñoom kii ñëpp ay jigéen lañ de ñu si bëree jigéen lañ. ma Adamo. Hmm. am na ci ñoo xam ne. nax xooy leen xaalis katt leen. waaw loolu dëgg nax leen teg leen di joxuñ leen dara moo leen metti moo tax ñuy yuuxu di wax di di ji di ji ma yoole. du mën a la dédd. li ma la lay wax lu leer la. yow xam nga bu baax. du mën a la dédd. yaa ngi waaw waxuma nag ñi nga xam ne dañuy dañuy gis booy di door ñu mer xam nga li ñuy def naqari leen ñu leen di boole yooyu noonu mais ñu ci ëpp ñu yuuxu naan ay booy liñ ma def booy liñ liñ def booy li li booy def duñ ko wax li leen booy def duñ ko wax mukk hmm, ay dañ hmm. maa door lekk nañ sama xaaj mais ku yor xaalisam kay nga xulli ba mu dóor la marto xam nga booy jigéen dañoo bëgg lu yomb ñoom li ñu bëgg mooy bëgg nañ yor ci iPhone quinze Pro Max yi bëgg nañ ci sol ay bëgg nañ ci takk ay cheveux 300000 te xëyuñu gontuñu léegi fi ñu koy kalmooy mooy pari foot wala cagatu te booy am nañ fulla goo xamante ni bi Adamo seen xaalis la ñuy yore xale bu jigéen bu ci nooy boppu ñëw ñu katt la nax la te duñ la jox dërëm bu ko defee na ngay vengé wu naan noo booy dañ maa dóor ak booy dañ maa nax ak dañoo lekk sama xaalis dañuy duul rek dañuy duul rek kenn du ci hmm, teg preuve bu palpable ci sa loxo dëgg la de mën naa nekk de. loolu leer wax kenn du ci teg preuve bu palpable ci sa booy yi dañuy nax kat la yenu na maanaa kay wax nii yenu na maanaa loolu mooy booy bala nga leen a classe fexeel nga jot booy nga laaj leen lan mooy histoire bi lan moo tax booy yu jigéen di révolté wu nii. histoire bi moom booy ay sàcc lan moom tekkiwul dara moom kay moom ay sàcc lan mais am na ñun ci kattaale mais ñoom ñii moom ay sàcc lan. voilà d' accord mën nga nekk sàcc. mën nga nekk sàcc di am xaalis. am na ñun ci katt nag mais doom ay doomu xaram voilà mu ngoog xam nga ngay sàcc di am xaalis booy hmm. jigéen ñi ñëw bëgg lu yomb nga nax leen kat leen wa la leen waroon a jox joxoo leen ko ñi ñoom lu ñuy wuti si cité mixta ba nga xam ne booy cité mixta lañ ne. Hmm. ak sali ak sali booy bëgg lu yomb. foo gis benn booy jantal men yor ak tuuti weccetam nii nga langal ko ko topp ko rek mel ne xaj di ko maral tuuram mu lay kat guddeeg bëccëg dinaa la jox temps dinaa la jox temps dinaa la jëndal lii nga topp ci rek di yatti yatti mu katt la ba ngay bëgg a dee joxule lam la lam la waxoon nga nga bëgg a révolté wu. man ñi Ezel ñi muy katt moomu ko def Ezel mérite méritewul sax tuunu ganaar gis nga Ezel bu dee katt dafa a mbaam xux ya katt ci boppam. moom la lépp moom Ezel moom xamu kuy kattanteeg moom gis laa xamul. boos. lay yéen a bëgg lu bon. boos. Hmm. Sénégal xaalis moo fi kattaate. waaw dëgg de loolu de na. Sénégal xaalis a fi kattaate. melal na buubu golo. boo yoree xaalis waaye day di fecc rek moom weccet rek la yor ba même 25 bi rek. koy dab xam nga xale yu jigéen dañoo gaaw a barde. neex a nax. waaw nañ la gis nga sañ sa lu rafet rek yor sa benn kii di di rouler nii ñu langal la ko naan wuy yaay dal naa ci dal naa ci ñu leen di kat rek ñu katt seen nday lañ man yii dañ may merloo. so oh, ci yàlla. cagatu gi lañ war a baax gi lañ war a baax. te ji ma uti lu def mbindaan a ngi fi mbindaan mbindaan ba nañ mbindaan ji wala bu fekkee jàpp ko def wala boo leen ko waxee ñu mbindaan ba faal dimbali ma waay yow ni ngay waxee ba nekk ku saf day mënoo dugg ci live bi live bi dafa laaj borom param yu baax yow ni ah. ngay waxee ba nekk saf day mënoo dugg ci live borom bi day mel ne kuy mayee deret kettal sa ndey génn waaw te nga wax nga dëgg de léegi méta cab la may mu wax Adamo naka mu. lépp jàmm. Ezel moomu la bëgg nga doxaan dafa ndeyam. moo moo ci gën a toj cott ndeyam di Ezel. kana moom gu gudd googu noonu mel ni radu ah. Baye Omar. dëgg la de gu gudd ni porte oto. waaw Ezel moom loo ko wax rek dëgg xoolal gis nga xale yi nii tusuñu jigéen ñi. ñoom tamit ñoo war a wax ñoom. booy bi waroo tëdd tafoo ko. booy ban wóor maa tëdd tafu ma ko nisaa Nisa ci la bokk. est ce que yaa ngi may dégg Adamo. waaw rek laay déglu métal. jigéen itam kenn raw leen. kenn raw leen ñoom itam lu ñu xës ba dugg dañ seen raxas dafa mën a futti ay bool. lu ñu xës dugg duñ si gaaw a jénne ñoo gën a. dëgg da ndax xaaral seen ndey nag. naa toj seen lafal nday ñoom ñëpp wala dara métti. waaw. yow kontaan naa jéem métal Ësël moom loo dëgganteem doyul. jeex na Ësël dinaa Ësël li Ësël lee dëjëw ndeyam dugg ci lafal ndeyam naafile ba bu bëree xëddee ci lëfal ndayam bu la dara bett kii mooy Nisaa Nisaa Nisaa ngi nii dem ci la bokk Nisaa moo toj cottu ndayam mënta nag boo leen gisee nag ndeysaan da ngay foog ne ñoom wàcc nañ kaamil wala ay baay fal lan mais ñu xam seen job nday lan ay sàcc yu mag lan adama comprendre sax. ah Nisaa dañuy dañuy utiliser booy yi rek. ma xale yu jigéen ñi seen bopp yi nekk dara newatu ci dara dara loolul alal walul àdduna waaw adama booy booy gel yi ngay gis nii ñuy traîner di daw Dubaay ñëw Turquie ñëw Europe ñëw lan nga leen xamal lu ñuy liggéey liggéeyuñ dara liggéeyuñ cott ndeyam li ñuy am suba ba li ñuy sol kaw ba suuf kooye leen koy dox dëgg la de. bu seen diil kalaatee rek ñu commencé weere commencé rëy nday ŋàpp seen tu yi wax. waaye dëgg wax ni saa mii dinaa toj cott ndeyam yee Adamo naka mu. waaw Gomis ñu ngi lay ziar bisimilah. waaye delloo ziar. mais wuy ma Adamo man nag par contre nag booy nag benn côté nag du ma leen blâmer dëgg la sax ndax i sax lu tax du ma parce que booy ñoom dañoo gis ñoom seen poids xam nga bu simple quoi gis nañ ni TikTok bi fayu ñu gis ne carrément xam nga dóor yi ñoom ñoo fi ne faaw ñu jéem a dóor booy yi nekk itam seen côté di jéem a siisu booy ñoom dund bi booy di dund lañ bëgg a dund te mënuñu ko. moo tax ñu ci bari fii la ñuy nekk di siisu naan waaye kii daf ko nii. mais dund sàcc ñoom ñu bari. xam naa ñoom ñi ñëpp ay dóorkat lañ. gannaaw dund sàcc bii nag ñu bari ñu ko de ku ko bëgg a def. lii du dund bu baax nii ñëpp ñuy wax ne ay siisumaan lañ déglu ma rek. mais ah, loo sàcc jox ko sa ak sa papa. non déglu ma non déglu ma mais ñii ngay booy ngay gis ne ay ñoom ësël booy donte ñoom ñu ngi dóor mais booy ngay gis. ah nii yëpp xaaj bi yëpp ñoom dund booy yi nii la ñuy jéem a dund. non mais dund bi moo ko mënul xam nañu ñoom carrément gis boo booy ñoom ñu ngi dund di leen ñoo di xaaj booy nii yéen saa yi bu yàggatee xaaj xam ne yow booy yi li ñu yor yaa ngi may dégg booy dund da ngay dund ci loo moom booy dund da ngay dund ci loo liggéey booy dund da ngay dund ci loo xamante si nii yaa liggéey yaa moom yaa ko sa alal la booy dund dund gu neex xam nga mooy lan ngay dund loo xam ne ku ñëw dala ciy naw mais ngay dund loo xam ne ku la fa fekk daana la yaa sàcc sama xaalis jëndee ko oto bi yaa sàcc sama xaalis jëndee ko kër gi. loolu gàccee dew loolu kenn bëggu. caa man actuellement man actuellement man li ma bëggoon lenn la quoi. maanaam booy man li ma bëggoon lenn la booy fexeel ñoom ñëpp ñëw ba nga woo leen dégg suba sa live quoi. bu ko defee hmm. cas bi mën a leer. gars yi mën a xam carrément nu affaire bi demee ak information yow yi nga jot am. dinaa ko defee ñu xam voilà nu muy demee quoi nga mën a téegal seen ndey bu baax. jeex na am contentement yaa jëf. Cheikh da laa jël job dollar Cheikh mais moom kéem bi daa mel ne day kii. Cheikh. ummi ñu ngi lay déglu ummi ñu ngi lay déglu mama ça Adamo nu mu demee ça va alhamdulilah ñu ngi lay déglu Adamo xale yu góor defuñu de lépp xale jigéen ñi la ndax sama moromu jigéen dañoo bëgg lu yomb tey dañuy ñëw si góor bëgg am àdduna li biiram ñoom ñoo teg góor ñi diir góor ñi wëlbati ko teg leen diir ñu am lu ne kaar non non du loolu dafa war uti liggéey duñ ñi jigéen ñi dañuy venger wu si kaw góor ñi tey ji bu leen góor defee dara ñu wëlbatiku tuune di wax si kaw góor ñi lu ñaaw lépp lépp vengeance la rek góor ñoo leen jekku mm-hmm. yow looy ñi dañ man Hmm. man damay liggéey fobeere toggaañ hmm. loolu mooy sama liggéey waaw ah, loolu lu baax la waaw kay nag gis nga góor jigéen ñi si boppam nag dañoo duñ fabeere pose ongle lañ fi nekke sañse teg safa fa ah, ko jëlee si góor bu ko jëlee si ñi léegi nag góor ñi dañuy fayu hmm, góor ñi dañuy fayu dëgg la de jigéen ñi nañ uti liggéey te bàyyi li nekkee dëgg la de loolu moom dëgg la wax moom. Diop caam li kii li wax dëgg la de. waaw yow lu leer nañu la wax. moom au moins mi ngi fobeere moom mi ngi raxas ay ay ay ay ay duusu dayukaay di raxas duusu sawukaay. waaw wax dëgg moo gën moo gën moo gën di ko langal góor man nag leen dong laa leen conseillé leen dong laa leen conseillé dem liggéey man mag maa ngi wàcc loolu dong laa am si lu ma ciy wax. yéex na demal madame fobeere. caam loo wax ci kii wax. waaw kooku li mu wax mooy loolu mooy dignité loolu mooy ngor. mooy yoon jigéen da am looy jomb am looy bañ. Mhm. garder sa dignité garder sa ngor. tey moom mi kenn du ko kaa ni ko yaa joxe sa lëf fii yaa simee ko fii kat nañ la fee. Mhm. day fobeere di daan dooleem lam ca am mu néew mu bari ma ngi koy fajee ay soxlaam. waaw ah, waaw. mais yeneen boy yi nag tey ñoom maanaam liñ leen di jox ci ci wàllu théâtre yeeg téléfilm yii ñuy teg ci tele yi. ànd bu ma def leen di kat di leen jox rek ñoom dañuy yaakaar ne àdduna loolu la quoi. ànd boobu ay doomu xaram lañ. ba bëri ma fàttewuma la de mais yow bokkoo ci ñi boy di kat yow. bisimilah. Thiam continue. dégg nga ma dama ni. genre genre série yi ñuy tekki télé yi nii. boo yu bëri ci lañ jël référence. wala ay appartement meublé sañse lu rafet takk ay cheveux yor ay iPhone dugg ci oto yi nga luxe boobu gars yi di leen ñoddi ci télé ci téléfilm yi. presse tam ci la bokk. Ah par na gars yi ne presse daf lay envoyé ñu ci bokkul de presse tam mi ci la bokk. bàyyi leen di ma tafloo ñu ci bokkul bul bul bul ci def erreur gis nga daal booy nga xamante ni bii xale jigéen yaa ngi ciblé. xalaatuma ko mukk si kër àdd ndax ne de la xëy na booy dama nga laajte ne da ngaa da ngeen a naan na xamuñu ko. bébé Riba xaw boo boo boo Sénégal la fa xamoo ko sax Sénégal la booy daal feek ñi ngi seetaan téléfilm yii ñu leen di xooy appartement meublé ak xaalis bi seen xel di ci nekk ñu koy bëgg te nanguwuñoo liggéey fuñ toll di simmi seen silip yi loolu mooy Amina xam naa dafa indi information moom de bu yéegee rek information lay Adamo hmm. Adamo waaw sànq damaa gis nga taf photo kii nu sax ouz meeg kii nu sax meeg osé nga ne xaw ma lim teg matul cinquante mille xawma ma. waaw. yow kooku noonu suite la jël suite bi neuf cent mille la fay. suite wax ay ay cinquante mille. ban suite beneen bi mooy Mick Ose mi nga tegoon noonu. waaw dégg barki démb def na benn vidéo TikTok mu naan ci booy yi man maa ci njëkk a jël suite fay neuf cent mille. waaye dañuy duur rek bàyyil waxu booy yi ngay déglu. déglu ba déglu yow teeru bi la nekk. yow moom di nga yomb a yow Amina. yow moom wuy ma wuy ah, ma wuy Adamo Adamo man ay information laa la indi nga may wax ay. du ma yomb a def nii waaye ñii dañuy duul dañuy fen. waaw déglu ma ma xam ku yow moom xam naa eh. yow moom. booy ci eh. booy ngay mujje tôt ou tard moom di nga fa dem. Adamo Adamo déglu ko. waaw. yaa ngi may dégg. gis nga ñii ñii nii fréquenté wu ma leen bay dugg ci ñoom. yaa ngi dégg dama ne la dama ne TikTok wax la beneen. waaw. gis nga kii Ezel mi ngay wax Ezel xam nga lay liggéey. Mhm. màdd lay jaay bu koor gi jotee màdd am mu jaay màdd yaa ngi dégg. Hmm. xale bu góor bi nga naan xam naa ko xamuma ko ay ay di yomba def ni nga yomba nii man waxuma ci ñooñu ndax ñooñu xale bu góor bi ma ko maîtriser bu baax kii di jaay yëre yi fële géejawaay muy Mec Ozé kii boutique bi. Mec Ozé li muy wax li muy ñoom li ñuy wane li ñuy wane ak ak ñu koy gëm ñu koy gëm la. Hmm. man gëmuma ñi gëmaane wala te sama xaalis duñ ko lekk. sama xaalis duñ ko lekk duñ lekk sama fukki dërëm sama cent franc duñ ko lekk. maa ngi liggéey maa ngi gagné sama vie. boo bëggee taxaw nag bëgg ma taxañ tu ma ko nangu ñoom ñooñ soxla ma seen fukki dërëm man li may liggéey maa koy amal sama bopp maa koy ñaqal sama bopp lii du ma ko ñoom ñi duñ ma ko may dóorkat yi nga xamante ne yorewu bëgguñu lu dul yore seen benn cinq cent mille wala su benn deux cent cinquante mille xooy la ko yow mii di jigéen jigéen ñi fees bi. bàyyi ngeen di wax kat doon ko kii kenn kattu ko Amina ko baax na. buñ buñ dóoree kii. moom kay daa boobu ko. Eh. baye <laughs> du ma wax sax ñii buñ demee fii tey buñ dóoree kii suba suba ñu dóor kale xale jigéen ñoo fay fees dell mooy ñi nga xamante ni amuñu bopp ñu aadama dañoo dox dem ba ñëw xaalis fëkkuñu lu ñu am ñoo ko liggéeyal suñu bopp ci amin bu lew nag. waaw yow moom ku la xool nii day xam ne dem nga. waaw yow nag xool <laughs> amatoo la wax jërëjëf Amina. daka mën a dul Amina information yi wuti rek ñëw baase wu ci topp ka Adamo Adamo ziar naa la. ñu lay ziar waay yaa ngi si jàmm. oui booy loo ci wax rek des na quoi booy bëgg nañ dund gu luxe te nangu gu ñoo liggéey. dëgg la de quoi quoi loolu mooy Sénégal booy dañoo bëgg a dund dund gu luxe te nangu ñoo liggéey. Hmm. ànd ko jigéen ñoo xam ne amuñu kilifa xam nga en tout cas loo ci wax rek moom des na quoi loo mën a def ci ñoom rek. def ko nan nan leer jaaykatu màdd ko jaaykatu màdd baa ngi nii ësal matt yi de moom la war a jërëf rof ko sa lafal nday def fa tooru matt a ngi ni asel ku ndoxum siti comme ku jabet boobu est dina lekk jëpp <laughs> non asel di ko comme ku ndoxum siti de wallaahi man sama gis-gis booy defuñu dara donte ne nag moom li ñuy def moom kenn rafetlu ko sàcc moom di dóor moom kenn du ko rafetlu. baaxul de mais kan booy booy jigéen di révolté wu nii naan ay booy yi téegalal seen ndey dañ ma dóor ak dañ lañ la leen azal def duñ ko wax. jaay jaaykatu madd bi da leen na kat ba seen data yi ba seen buumu tama yi bàyyi seen élastique yëpp bàyyi na. Eh, waaw da ngay gis jigéen muy dox weeni comme mbuusu ndox. est-ce lu baax asel mii ni mu mel nii. c'est élastique gisoo ko buy def vidéo yi ni muy def dafa nooy comme góor jigéen loxo yi lay jopp di pajax pajax xeeg di wër bedd yi di fecc rek kii mënut a kii da kanaara sax mënu koo kat koy baaxul de. Adamo de naa la xamal leen de gis nga booy li ñuy woon di xale yu jigéen yi. billahi rek la mën a doon. jaaykatu màdd bii. Mhm. billahi bu la bu la bill gis nga man dama bëgg nga jël ësël nga jël ko ci laay bi mu wax nga déglu. asal kay kenn du ko déglu. asal kay bu duggee tas nañ dëkk bi. tey rek aussi mooy gëree de. mu ne ko meg ose yaay gëri seen gel yi de xam naa danañ leen bàyyi ndax ku ma ci jàpp ba toj sa cott nday ramita saaliw nde sama ñaari di awante bu ramita ñëwee amina dem <laughs> a waay nga a waxaat xale yu jigéen ñàkk fayda rek xale yu yee perte ñàkk fayda hmm. bàyyi xale yi xale yu ndaw yi nga xamante ne amu ci benn njariñ ñoom tam ñu am jom liggéey nañ dem liggéey bu di ñu màgget fii nii nekk fii taxaw si tali yi paa taxaw di yalwaan ak di def ay yenn yëpp nga toll si liggéey te liggéeyoo defoo ko boo demee ba weesu ko danga koy bëgg te dootoo ko mën. waaw nga de. nañu liggéey am jom bàyyi lu ñuy def li amul benn saas ay sàcc yi ay door xaalis neex na torop ne fi ngay mujj moo dul neex parce que lu mu yàgg yàgg yàgg yàlla dina la fay sa bor. lépp la wax dëgg la. moo tax nañ dem liggéey te am jom. moo gën ci am fulla ak fayda xale am fulla ak fayda mooy ay dem si appartement dem ay dajale xaalis ak te man li ma gën a métti am na koy def ëkku loolu moom ma si gën a metti di jël seen